آه، الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه إلهي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit ñi نيوسي ñi بلاتفورم suivre ci suñu plateforme yëpp ñoo ngi leen di nuyu di am ci vidéo bi nga xamanteni mom la mbokk mi di nara wax ni ñu déglu ko. fa nga tok mais daaw ñu def mbolo allah allah allah allah non lolu moy bida so comprendre yow da nga naan lii li sunna la sahaba yi def nañ ko mais mode biñ ko defé motax mu nek bida ndax sahaba yi xamuñ ko. Sahaba yi musuñu tok nek mbolo sanni ben affaire ñëpp dajaloo tok di gem gauche droite. allah allah allah non sëñ bi li li folo c'est des folklore bu la deewal mais fo aywa il faut am leeral yu ndaw yoo xamante dañ cee dañ ciy ñëw. avant tout mooy saxal tudd yàlla ci baatu allah allah allah ci alquran ak ci sunna bu fekke ne ci alquran yàlla moo ñu wax muné qulillah summa zarhum fi xawdihim yalabuun waxal allah te nga bàyyi leen ci seen caaxaan ñu ci lab beneen bi mooy yàlla wax na ci alquran iqra bismi rabbika baatu aussi bismillah bismi mooy au nom allah dallah allah kon zikr bi foofu allah lañ ci soxla yàlla wax na ne wazkur isma rabbika tuddal sa turu boroom ñun jullit suñu turu boroom mooy allah ma ne yàlla wax nañu ne waxal allah ba mu leer qulillah waxul qul laa ilaha illa allah waxul nangam nangam ànd ak ne yooyu yëpp ay zikr la waaye saxal na qulillah waye bi gëna leer sax moy hadithu anas ibn malik bi nga xamne mo ngi ci saxiixul muslim yenent bi sallallahu alayhi mu ne laa taqumu saa hatta la yuqala fi l ardi allah allah hadith bu leer la yàlla yenent bi salaa sallam mo wax ci hadithu muslim bo xamanteni anas ibn malik radiyallahu anhu mo ni ko netali yenent bi mu ne yowma qiyam aduna bi du tukki aduna bi du tukki lu dut ne waxatuñu ci kaw suuf allah allah منن وقت كوتو ترو يلا منن وحن حتى لا يذكر في الأرض اسم الله وعيانا تبينها حمانتين لا ينطق عن الهواء تيتا مومو ني اوتي تو مجامع الكلم من لا يالا ماي الوكونس بي غنا تيغو يانا تبي موي كيغا خامن بو واخي واخام دا فاي لامب ليب لوي معنا مو واخ مو ني خام لين ني سوف سي يالا دوكو لم فيك نيت نياغي واخ الله الله تي كوسوف بنن بي اوسي بني ورا ليرال موي كاني بدعه ñu bari dañ ci nax nit ñi bidaa duwut ne lu yenen te bi defut wala lu sahaba yi defut lool hatta imam as suyuti nga xamanteni ken kenn rawu ko ci xam-xamu hadith mok yenen borom xam-xam yu bari yu melni mom dañu ne bid'a da fay am ñetti critère ci ñetti critère yi lañu xol manam bépp mbir mo xamne dafa am absence ñett yi lolou bid'a la te bid'a qabiha lay doon ñu ne ko lan mu ne il faut mbir mi fekk dañ ka def pour ji jublu ci jaamu yàlla buñ ci jubluwul jaamu yàlla batay ken du ko tuddé bid'a il faut fek ne ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko def il faut fek ne amul cosaan kon lepp lo xamne dañ ka def djubli ci jaamu yalla ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais mu am cosaan bàyyi nañ bàyyi xel ci cosaan li firi moy mbir mi fek amna luñ ko meuna askane dafa melni qiyas sharia dafa am luñu tuddé qiyas moy mooy comparaison bu fekkone ne mbir mi c'est identique ak li passé kon kenn du tudd turu comparaison c'est la même chose qui est là kon bu fekkee ne saxaaba yi daan nañ daje di di zikar duwuñ ne dañu naan comme que alquran rek lañ doon jàng kon zikar bi alquran kese la war a nekk déedéet bu fekkee ne paa yi nekk fii mënuñu alquran mën nañ subhanallah dañuy wax subhanallah mën nañ allahuma salli ala habibina muhammad dañuy wax allahuma salli ala muhammad zikr bi ñëw na mbooloo mi ñëw na boobaa kon dañuy wax ne ah lii ni nekkatul bidaa ndax am na cosaan benen bi moy at tarku la yaani al haram li mom je pense que nit ki lo meuna ñaka a jàng ci usulul fiqh war nga xam qaida bi at tarku bàyyi manam yenen bi sallallahu alayhi wasallam baña def dara la yaani al haram lol firi ne dafa haram yenen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ka indil mbeut mune man duma lek mbeut firi firiwut mbeut dafa haram mom moko du lek mom de nga yenen bi sallallahu alayhi wasallam musta tok ci jàkka ne len ñëw len ci wéru koor ma tafsiral al-qur'an pourtant dañ koy def yow miy weddi ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu deful bidaa la da nga koy def waaye ànd ak loolu kenn du la ne bidaa la ndax lan xam nañ ci saxaaba yi kenn ñëw ci moom ne ko firil ma dara ci alquran waaye utal ko programme dégg nga nit ñi ñëw toog def ko ci bésu weeru koor ci biir jàkka loolu xamuñ ko woon ci saxaaba yi xamuñ ko woon ci yenent bi kon nañu nañu yaatal nañu féexal suñu xol yi parce que yenn wax yi sax ak noo ni nga koy waxee day xaw a nduróog naqar day xaw a nduróog nit ki dafa am malaise nit ki mën nga woote sa tariqa parce que lii tariqa la rek ku nekk ci ñoom tariqa lay woote parce que tariqa mooy yoon yoon bi nga xam ne ci nga nekk gëm ne lii la yenent bi sallallahu alayhi nekkoon nga ci yar mën nga woote jëm ci sa tariqa fekk doo wane sa faiblesse ci di weddi ñeneen yi wala di jéem a euh, dajji liñ nekk te yow li leen di dajji ñi fa nekkoon buñ fa jógee loolu ngay saxalaat ci ñoom dangay am sa daaira am ay talibé yo xamna ne ñoo lay top am ay cotisation mensuelle am am am am ainsi de suite lolu moy moy tariqa lolu moy yoon kon nit ki na wote jëm ci yàlla bil hikmati wal maw'izati al hasana moy nga nga ànd ak sagesse ak bienveillance ak ak laab biir comme niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam jàngale waye diine bo xamante da fay teggu ci soline ci melo ci lolu lolu dud lolu kess moy diine waye diine da fay bokku ci bëggante yenente jàmm Denga, nga laayante biir laayante biir parce que ad an nasiha ñoo ngi ñaan yalla yalla ñu yalla may xam-xam buy jëriñ ak ragal yalla lepp lu ñuy def rek yalla nañu tek suñu kanam aya bi yalla waxon ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah ragal len bés bi nga xamanteni ci ngeen di delu ci seen borom yalla nañuy tek aya bobu non parce que yu bari dérapage yu bari yi ngay gis yu melni ni koy waral yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla defal ñu defal ñu tawfiq بذاه رسول الله عند الله من يخمي الذكر باللفظ المفرد موي الله الله سخنا القران سخنا في السنه كيب كوكاي داك سا داك بوب غاي داك تي ان جينيرال صاح بوروم دوني بوروم خام خام نينا بوروم خام خام نينا دا فاي تاخاو رك دي داك تي اي ارغومون وخلام تي بو فكي ني نكاي ديغلو امو خام خام واخ ديك يالا داي نيه مو اورينتي لين تي مو بغ يالا نيو يالا جوبال بجاه رسول الله عند الله الحمد اول دعوانا واخرها والحمد لله من حين الى حين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته di leen informer que ni ndaanaan faydu dañoo am benn institut bu ñu def en ligne tuddee ko ndaanaan institut ci njiitalu oustaz Abul Abbas at Tijani ak équipe bi mu àndal dañuy distribuer ay cours en ligne pour nit ki bëgg a mën lire alquran wala mokkal alquran wala lépp lu jëm ci xam-xamu diini képp koo xamante ne loolu intéressé na bëgg nga cee am plus d'info mën nga ñëw message ci numéro yii nii par whatsapp numéro bi kenn mënu kaa jot lu dul par whatsapp